dooy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mën ta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa du dellu si waat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow li ma sosoon yow ci téeréeb yàlla bu màgg bile di alquran di gën ji téere yàlla wàcce ko ci gën ji yonantu gën ji yonantu indil ko gën ji xeet xeet wi le ba péncam yàlla ñi man ci téere bi ci jàng ko man ci téere bi ci jëfee ko ñooy gën ci xeet wi ba bay àdduna bi téere bi xeet wi le yonent bi mooy sangu xeet wi gën ci xeet wi yëpp moo gën moo man ci téereb yàlla bi lim ci daj kenn daju ko ci lim ci man kenn mënu ko ci lim ci def kenn defu ko ci moo dem ba am ñeent fukki at ñu ne ko demal ca daara ja nga jàngi mu ñëw ci daara ji jibril ne ko jàngal mu ne ko man donnuma njàng du ciy maam bu ci bàyyi mu njatt ko bàyyiwaat ko ne ko jàngal mu ne ko donnuma njàng mu njattaat ko mu ñett yoon mu dem ca kër ga ne sàng leen ma li ma dégg tey gis ko musuma ko dégg musuma koo gis xadijatu ne ko yow mi war a sàngi xel yi sàngu du la jagal sàngeekul nga delluwaat bu la waxee nga ne ko lu may jàng ci yàlla ne ko yaa ayyuhal muzammilu fii mu ne ko yaa ayyuhal muddassiru qum fa anzir yonent bi ñëw na ko li nga jàng daal la saar woowu di iqra moo njëkk a wàcc ci alquran yonent bu nekk ca saar yay ñëw ba gannaaw iqra nuun wal qalami moo ci tegu gannaawam yaa ayyuhal musammilu gannaawam yaa ayyuhal mudassiru gannaawam tabat yada abi lahab gannaawam isa samsu kuwira gannaawam sabbi isma rabbikal a'la gannaawam wal layli ida yaxshe gannaawam wal fajri wa duha door a ñëw alam nasra wal asri wal aadiyaati innaa ataynaaka alkawsar alhaakumu takaasur araayta alladi door a ñëw qul yaa ayuha alkaafiruuna ñëw suratul fiili qul huwa allahu ahad wan najmi ñëw habasa ñëw suratul qadri suratul buruj wa tiini li ilaafi qurayshin alqaaria suratul qiyaama suratul hummasa wal mursalaati door a ñëw qaaf door a ñëw suratul balad ñëw suratul taarix iqtarabat saat door a ñëw saat door a ñëw araab ñëw suratul jinni ñëw yaasin door a ñëw furqaan door a ñëw ñëw maryama bani israila door a ñëw yunus ñëw huud ñëw yusufa ñëw hijri ñëw anam suratul mu'min ñëw sajada ñëw xaamin ayn sin qaaf ñëw suxraf door a ñëw suxruf ñëw duxaan ñëw jaasiya ñëw ahqaaf door a ñëw wazaariyaati door ñëw gaasiya ñëw kahfi ñëw naxli ñëw suratul noox ñëw ibrahima ñëw anbiya door ñëw su ko defee nag waa suratul mu'min muy xad aflaal mu'minun a ñëw tanzilu sajada ñëw wa ñëw suratul mulki ñëw alxaqatu ñëw saala saayilun dóor a ñëw xamayta saaluna ñëw wan naafiaati ñëw ida samaam fatarat ñëw ida samaam saqat dóor a ñëw suratu ruum ñëw ankabut ñëw ah lii nag ñoo ñu wàcc ruum ñëw ankabut borom xam-xam yi wuute nag wan saar moo mujj a wàcc ca Makka ñi ne ankabut moo fa mujj a wàcc loolu la Abbas gëm daxaa ak xattaawun ne ko suratu mu'minuun ñoo mujj a wàcc mujahid ne la mujj a wàcc ca Makka mooy suratul maanaam waylul mutaffifina moo mujj a wàcc nii mooy parti ci saari alquran mi leen wàccee ca Makka boo ko boolee li limal la limal lépp ñoo wàcc Makka juróom-ñetti fukki saar la ak ñett muy quatre-vingt-trois suwar ñii ñoo wàcc Makka te nii la toftaloo ba yonentu bi ñëwee nag Madina fanweeri saar ak benn rek ñoo fa wàcc dafa njëkk a wàcc ca Madina mooy suratu Baqara lan faal ñëw Aala Imraan Laxsaab Mumtahina nisaa yi suratu Sulsilat bu iwasul ardi sala hadid ñëw suratu Muhammad Raadi Rahman halataaka halata alal insaan door ñëw Talaaq ñëw suratu Xasri Falaq ñëw Naasi ñëw Izaa jaa nasrullahi ñëw suratul Hajj door a ñëw Izaa jaa kal munaafiquuna door ñëw. mujaadala ñëw hujuraat ñëw tahrim ñëw suratul saff suratul jumaa ta ta ta taxaabun door a ñëw suratul fath tawba ñëw nag maayida ñëw nii lañ toftaloo waxee am na nag ñu ne tawba moo mujj a wàcc ñi ne maayida mujj a wàcc waaye daal saari alquran yi nii lañ toftaloo waxee ci ak wàcc ci madinatul munawara nekk fanweeri saar ak benn fekk juróom-ñetti fukki saar tabaarakallaahu ak ñett soo ko boolee lépp muy téeméeri saar tabaarakallaahu ah, ak fukk ak ñeent ñeent nañu ne téeméeri saar ak fukk ak ñett mi ngi aajowoo ñu jël baraatu def ko muy saar ak ña ko defut muy saar rek ña ko def muy saar utal nañ ko argument yu dëgër ña ko defut muy saar tamit utal nañ ko argument moo tax léeg-léeg mu nekk cent quatorze wala léeg-léeg mu nekk cent treize kon lii lépp ñu wàccee ko ci jënn jëmm mu dékku leer ga mu dékku diisaay bi yàlla ne woon inna sa nulqi alayka qawlan thaqila moom nag bu ko daan ñëwal wax yu bi bu daan alquran bi di ñëw ah ay façon la maam Khalifa nee na daal façon ya juróom ñaar laa ca jàpp moo ca gën a dëgër am nañu ne juróom-ñeenti façon la Ibnul Qayyim loolu la maanaam loolu la gëm maanaam ñeent fukki façon la loolu la Ibnul Qayyim gëm ah boo demee ca A'laamu Nubalaa lim na lu gën a bëri loola mais maam Khalifa nee na juróom-ñaar rek la bi ci njëkk wax yu gi daana ñëw alquran di ko ñëwal mu nekk jëmmu jum jàkkaarloog di gis koy ëmb booba nag dafay sol jëmmi nit Jibril ñëw sol jëmmi nit carrément. comme nam ko solee woon ca hadiisu Seyduna Omar bi mu solo ne toog nañ rek jënn jëmm ñëw ba mu ñëwee gisuñ ci moom jeexatulu tukk tàng yi tànk ya pëndut kawar ga pëndut mu jël xóom ya sës ko ca xóomi yonumtu bi jël ñaari ténk mi teg ko ca lupp yonumtu bi sëgg ne ko wax jama lay laaj luy lislaam yonumtu bi ne ko juróomi doom la tudd baatu seede bi julli julli juróom nga war weeru koor joxe asaka aj na ko mu ne ko luy imaan mu ne ko juróom benni doom la diine ko diine ko jur mooy ñaareeli mooy ñaareeli doomu diine di tofam eh, eh, islam mu ne ko waaw juróom-benn ya gëm yàlla gëm yonantu yi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal bu neex ak bu naqari yëpp nga gëm ko muy amana rasul ma until in rabbil mulkul amana billahi wa malaikati gëm malaaka yi wa kutubi wa rusuli ba juróom benn yamaat mu ne ko luy ihsaan mu ne ko mooy caatam diine ñaari doom rek la xam mooy tofo